wàccee war a mën a ñëw dem ay kii yooyu terewul nag mbëri da leen di déggante ak ñoom koo hmm. si war a seeti di leen seeti boo ñëwee sa équipe bi war leen seeti di nga leen seeti loolu moom du très daal xam nga la hmm. man maa ngi saal sama kër maa ngi saal sama kër damay entraîné <laughs> xam nga la am naa saal eh. waaw sa relation ak euh, boru Pikine yi ko ku ci mel ni ñoom Eumeu Sène hmm. Baboy ay Tyson ñooñu noonu sa relation ak ñoom est-ce que ba léegi cek yaa ngi déggante ak ñoom. xam man aw ma sens interdit man aw ma problème kon ni ma gisee nii ma mel nii noonu laa mel. mais yaa ngi déggante ñoom. xanaa déglu ma hmm. muy Eumeu Sène ak muy Baboy. Hmm. muy hmm. muy mbëru Pikine nekk foofu. tey ki ngi xam ne Ama Baldé. xam muy booy Niang. ñoom ñëpp amul kenn ku ma si amul benn problème. ñoom Ama. Boy Niang samay rakk lañ. xam nga la. Eumeu Sène ñoo di bétandoo. yaa ngi leen di dégg téléphone. dama leen di dégg. xam la. Mhm. dama leen dégg même booy ñaa papam ñoo bokk benn benn benn groupe. Ah, xam nga la waaw ah, ah. moom tamit xamoo xamoo tey. Mhm. déggool moom moo ñu doon entraîné. xam nga la Boy Niang sañu sañu rakk la. Mhm. moo ñu doon teel sañu yére nii. xam nga la di bëreeg ñun di bëreeg ñun di bëreeg ñun di bëreeg ñun nii. xam nga ba dem yàlla def tey ndax wax dëgg yàlla xamoon ne dina nekk dina nekk champion. ndax papam da ko ber. di ko liggéey loolu liggéey bu metti dañoo demoon ba ne ko yow kii xale la xam nga wax liggéey bu mu ko doon liggéey loolu yëpp feeñ na Boy Niang tamit Boy Niang mo li ma la si expliqué si Boy Niang Ama Baldé tamit noonu amaa Baldé tamit ba may ñëw si écurie man écurie Falaye laa njëkk yaa ngi may ñëw boobu moom xale la xam nga Ama daf may woo téléphone damay toog nii jékki-jékki mu woo ma téléphone xam nga ñoom ñëpp amul mbër na bëru Pikine boo xam ne am naa am naa moom problème ñëpp samay waay lañ xam nga ndax man aw ma sens interdit si kenn li yenn mbër yi gëm man gëwuma ko man man ni nga ma gisee ni ma gisee nii noonu laa noonu noonu laa mel na damaa xaw a réserve nag boo nga xam ne nag man nekkuma foo foo da may gis fu nekk nag xam nga wala nit ñëw làmb wala ay fexee bu ma ñëwee mën naa ñëw làmb sax toog fenn foo xam ne kenn du ma gis ah, du ma bëgg non dama lay expliquer ko mën naa ñëw làmb ndax mën naa ñëw làmb mën naa dagg sama billet ñëw làmb toog ñëw toog. Mhm. xamula wante yenn xumbaay ak yenn affaire yeeg yenn affaire yi moom kenn du ma si gis. wala affaire yi allah moo tax moo tax. Hmm? moo tax am na yu bari da nga koy moytu mais li tax ñoom bu ñu mhm. moom laa lay expliqué noonu. tey mën nañu am ñu def seeni programme yaa ngi dégg ma bañ a ñëw loolu dara wanteewul man damay déggante ak ñoom. xam nga la léegi nag ñi nga xam dañoo bëgg fës mën nañoo bëgg fës. Mm. xam nga la ñoo dekk si kon xam nga yéen tey bu la gisul benn nit si okum pressam rek ngeen ne ki du tax diw ñëwul. Mm-hmm. yaa ngi fekk mbër bi woo na ko téléphone man wutuma fa dara. Mm-hmm. laa fay wut lépp lu may waxanteeg mbër bi kay mën naa ko wax ak moom rek. amul leen lu ma ko yokk wala lu may wax pour ñëw. Mm-hmm. pour bëgg a feeñ wala diw ñëwoon na fi. man aw ma aw ma aw ma jot boobu wax yàlla làmb tey ak làmb démb am na différence yéen seen làmb yow ba nga nekkee ci làmb. ak ni nga gisee làmb ci nii ban am na différence. waaw am na différence tuuti rek xamoo daanaka ñun ba ñuy bëre. sponsor yi bëri woon na. daanaka sponsor yi kenn ku nekk da nga doon concurrence ak sa morom. wante léegi gisatuñu ko. daanaka boo calculer si lu ñu wax euh, promoteur bi mooy mooy jël ay moyens boppam. yenn saa yi nga gis promoteur bu tëgg làmb ba pare sax après mu yoral mbëri xaalis. xam nga pon làmb pon metti na. ah dañuy ñaan rek sponsor yi ñu ñëw dugal seen loxo rek. jàppale booy ndax sponsor yi bu ñëwee jàppale booy rek. làmb day gën a jëmaat kanam loolu rek moom moo téye làmb ji dara wàndu dara. promoteur yi ñuy bëgg. wante dañ bëgg loo xam bëgg see dugg loo xam ne. xam nañ ne buñ si duggee tamit dina metti ci ñoom. loolu dong la waaw. su ma la waxee Balla Gaye. Hmm. Modou Lo. Hmm. ne la kii di euh, comment encore Tapha Tine. bëri nga ak moom. waaw Eumeu Sène. waaw te seen performance kenn ku nekk. Hmm. ay qualité lan nga may wax ak Lac de Guiers 2. ak Lac mhm. xam nga ñoom ñëpp ay mbër lañ. Mhm. ñoom ñëpp ay mbër lañ. Mhm. Euh, man li may wax rek. avant nit di toog sax damay wax ak moom wala ku ku ne xame nag man ndax man Eumeu Sène dama ko xam. xam ay qualité am si bëre. man sama bopp dama naa Eumeu Sène gisuma mbër bu ko dàq bëre si làmb ji. ndax moom laa xam moom laa gis bëreem. Mhm. doon contact ak moom. Mhm. yaa ngi mhm. xam nit ki moom li nga xam si moom rek ngay wax. bokkul ak ñi nga xam ne tey. xaw ma leen bu baax bu dul làmb laa leen xam ni làmb am ñëw mu ñoom Modou Lo mu ñoom Balla Gaye xam nga kenn ku nekk li ngay contact. sa waa écurie rek ñoo la mën a seedal li nga mën a kon li ngay kii ak foofu. xam nga kenn waranteew ko. Balla Gaye kenn warantewul ne mën bëreem dafa mën a bëre bëre moom amul kenn ku ko wax na ay kii waan kon tey li ma wax man man dama la expliquer li nga xam ne tey dama fa jaar ak ama seen dama dégg loolu wàllu contact laa wax ak ak làmb nag làmb la xam la muy Balla Gaye muy Modou Lo la ñoom ay champion lañ ñoo xam ne dañoo def seeni preuve ba ñëw téye làmb ji seen loxo ñoom fi mu tey mënoo tudd làmb te tuddoo leen ndax dëgg yàlla lañ fi def amul wax ma dina jafe nit bu ko nit bu nit bu ko nit bu ko def nii. ndax mhm. dëgg yàlla ndax nit moom boo ñëwee gëm sa bopp rek lu ne mën nga ko lu ne mën ko am. Mhm. waaw. la de guerre da dégg gaay naan dafa mën a rasu. waaw gaay naan rasukat la affaire yooyu noonu mais lan nga gisee loolu rasu ci bëri la ah, si bëri la bokkee. Hmm. <laughs> amoon nit ku ne. <laughs> Ah. xam man maa ngi ñëw bu arbitre bi ne prip man du ma la woon ginnaaw man damay ñëw pour pour court cas pour ñu ñëw bëre. Mhm. am na ñoo xam ne nag mën nañ fa téye làmb ji fi ak 30 minutes. comprendre nit ku ne ak ni ngay bëree. Mhm. li muy wane contact. Mhm. loolu la wane si làmb ji amul leneen. Mhm. ñun li ñuy wane si li ñuy li ñuy contact moom lañ ñëw wane si làmb ji. xam nga loolu day am dafa am mbër yoo xam ne tey fii ak boo doon bëree ñoom fii ba ginnaaw suba. doo leen daal loolu day am. ndax bëre tey da ngay ñëw léegi léegi bokk la koo xam ne damay ñëw léegi dañoo bëre balaa cinq minutes làmb ji war na jeex na ma daan mbala ñu daan loolu day am. xam nga tey man ma ñëwoon tëgg dëggal sama bopp rek taxaw rasu. fii ba suba ma dooma doo dooma daal xam nga man damay ñëw taxaw na daal man combat bi dañ ma dañoo fay kii fay ma balaa cinq minutes war naa war naa mën a bëre jóge fi xam nga nit ku ne ak ni ngay bëree moom loolu la jànge bëree xam la te moo yàlla moo ngi koy suturaal mu am ndam ah moom loolu champion la loo gisee grand contre petit parce que ñu bari euh, avant petit sax ndax euh, am na benn kii ku naan petit amul mais gis nañ ni comme ñu mag ñi dangay mhm. dégg léegi ñoo làmb bëri mag yi ñoom ñoo ko yàq mhm. parce que duñ wàññi seen cachet mhm. te loolu noonu nan ko déggee ak grand contre petit bi loolu day defar làmb wala day yokk day kii day wàññi làmb non xam nga làmb moom làmb ñëpp xam nañ ne làmb nu muy nu muy nu muy doxee làmb doo tëb tëb rek bëre ku mag danga am foo jaar di nga am foo jaar ba nga xam ne làmb moo leen di boole nekkul ay làmb moo leen di boole foofu kenn mënatul rëcc sa morom làmb moo leen di boole xam dafa mel ni Yékini ak Balla dem na ba nga benn dem na benn moment boo xam ne Yékini mënul Yékini mënul dem fenn te du bëre ak Balla loolu moom mooy loolu mooy mooy xew. xam loolu moo loolu ak làmb moom ñoo ànd quoi. tey booy yi ñooy dem fekk ji mag ji. xam la ñoom ñooy def ay preuve pour war a mën a bëre ak mag ñi. xam nga léegi nag tam fi mag bu tamit buy def ay preuve xale bi du ma tamit du ko mën a jot de. waaw loolu rek moom mooy loolu moom mooy loolu mooy làmb. waaw Ama Modou Lo ko gisee. neex la. combat bu boo xam ne. wax dëgg yàlla ah combat boo xam ne combat xam nga tey combat maanaam si Modou Lo combat si Ama Baldé ndax tey euh, Modou am na tàkk soxna bu nekk. Ama Baldé am na tàkkusaan bu nekk maanaam ñu doon Modou Lo da ngay xool ñu Modou doon bëreel Ama tamit mu xool ndax ñu mu doon bëreel ak Modou Lo ndax benn lañ xam dañuy ñaan yàlla yàlla mi maye combat boobu ba ñu war a sëgg bëre ah, yàlla na ko yàlla may Ama mu daan ko bu set wecc. waaw Ama Ama est-ce mën na daan ku nekk. mën na daan ku nekk. dañ koy ñaanal rek mën na daan ku nekk xamal xam nga mbër boo gëmee sa bopp boo xoolee qualité bëreem bi nga xam ne mën na bëree ku nekk. kon ma exemple tey euh, Modou Lo moo ngi soog am komba combat waaw combat. combat boo xam ne ñoom ñaar seen taay yu sorantewul. yaa ngi dégg te daanaka sorantewul ñu bëri. sorante wu ñu bëri moo tax ma la la moom moo ngi soog am combat komba komba bu mag la am nag. ñoom ñaar am na ku ci dàq bëre Ama ak Modou. non xam nga tey pon exemple. Mhm. Modou lu mu def si làmb kenn na ko wax dëgg yàlla mhm. tey boo doon joxe favori dangay ngay jox favori Modou mhm. ndax lu mu def. ak ñu mu bëreel ak ñu mën na daan ku nekk. moom boobaa Modou Lo moom moo lay gën a xam ne sax moom am na komba ñu mu doon bëreel ak kii bokkul. moom dina moom bu dee bu toogee dina xam lool dina dina xam lool. waaw. Boy Niang Balla Gaye 2 combat boobu. Mhm. gaa yëpp gis nga yow. ndax da ngay dégg. Mhm. ñu bari dégg nañ suñu papa déggoo ñun ñëpp. Mhm. Balla Gaye 2 Balla Gaye 2 Boy Niang Balla Gaye 2 combat boobu noo ko gisee ak noo ko déggee. waaw pour ni ko nit ñi déggee rek laa ko déggee ndax combat la boo xam ne ah daal liggéey rek muy euh, booy Niang dafa liggéey rek ba tolloo ak ñoom. xam nga léegi nag euh, Balla Gaye moo koy may sens rek wala mu bañ ko may sens rek loolu mooy làmb xam nga làmb moom. nit ki Balla Gaye kenn nataabalu ko maanaam si lu mu def si làmb tey benn moom mooy bëgg bëre booy ñaa rek bu abseetee pour bëre booy ñaa mu xam ne am na combat rek. kanam combat. Balla. Balla am na combat. non non bu. bu accepté bëre booy ñaar nga naan na combat. Ah. waaw non xam nga day am combat ndax làmb la. Mm. làmb moom jër dara jërul xeeb. kon Boy Niang am na ci chance loolu pour kii Balla Gaye ah <laughs> nga Fatima am na loo xam ne yow xam nga ba pare. kon Boy chance boobu noonu pour mën a yëngal doomu Double Less bi. non dëgg xam làmb. Mm. làmb ku la waxoon ne tey Balla Gaye dafiy jëlee Yékini xam nga doo gëm. Mm-hmm. yaa ngi ne waaye Balla Gaye gëmoon na boppam dafay jële jëlee Yékini. Mm-hmm. yaa ngi léegi booy ñaa bu amee gëm-gëm boobu ne dafay jële bàll Gaye nag loolu foofu nga rek ngay xool waane Balla champion la xam nga la tey boo tegoon ñoom ñaar Balla ngay jox favori ba gis leneen lu fay xew foofu laa lay waxe daal waaw Eumeu Sène ak Gouye Gui combat boobu noo gisee Eumeu Sène ak Gouye Gui <laughs> ah combat de. Eh. waaw combat la Gouye Gui moom sama dëkkandoo la. Ah. <laughs> <laughs> sama dëkkandoo la xam la ah, ah. sama rakk la tamit. te wax dëgg yàlla ku baax la. waaw wax dëgg yàlla fu mu ma gis tamit. Eh. respecté na ma trop fu ma gis dina ma collectionné nuyu ma xam mhm. wax dëgg yàlla amul benn problème. Mhm. wante nag làmb moom moo demee noonu gis nga làmb. Mhm. làmb moom làmb rek la tudd. di nga gëm ne nit yow yaa ko mën nga dem ba si biir làmb ji. li nga li nga foogoon doo am. xam nga li nga foogoon doo am. mën na daan ku ne si làmb li may wax rek mën na daan ku nekk si làmb. maanaam kële am na gëm-gëm boo xam ne moom. uniquement dafa bëgg a bëre ak euh, ki nga xam ne mooy euh, mooy Eumeu Sène. Ah, làmb la rek xam nga làmb moom. nit dinañ wax waane ban promoteur mooy jël. wax ne moom bëgg na combat bi. Mhm. xam nga moom di nga gis ñu koy de ñu koy débat nii. Mhm. waaye bu ñu demee ba ñu ne ah commencé nañ dox. Mhm. avancé ah, kii nañ kee nangu na kee nangu. ndax man loolu moo ma desee wóor quoi. guy gi nee bëgg na bëre. xaw ma ndax Eumeu Sène nee na bëgg na bëre ak guy gi. loolu nag moom loolu moom kii wu ma si xaw ma si dara. waaw combat waa daal waaw combat euh, beneen bi mooy. Euh, nan nga gisee instant bi làmb ndax gis nañ ni euh, Alioune Sarr gars yi ans de pouvoir. doy na. gis ne gars yi ne amatuñu xam-xam waa CNG. Mhm. bu mën a yor làmb. Mhm. mais yow d' après euh, yow Alioune Sarr fi nga ko fekk. dégguma li nga wax de. Alioune Sarr. waaw. vingt six ans vingt six ans de pouvoir. waaw gars yi ne doy na. waaw ñu gis fi nga ko fekk fi nga ko bàyyi. waaw am na sa mbokku mbëri. Mhm. d' accord ne mënatuñoo jiite làmb parce que cent neuf lañ soxla. mooy tet yu bees. mais nan nga gisee loolu mooy waa CNG. waaw loolu moom. maa ngi dégg mbëri di ko wax nag moom lu bëri wax dëgg yàlla fu ne moom ñoo ngi koy wax ñu ne am naa sam benn grand sax grand Mansour Diop am na lu mas naa ko déglu mu wax si su lu rafet. Mm-hmm. mu ne wax dëgg yàlla Alioune Sarr lépp lu xam ne waroon na ko def si làmb def na ko mm-hmm. wante nag instant bi il faut mu dem ñeneen ñëw. moom non moom loolu la wax. mais yow d'accord xam man lu may d'accord mooy. Mm-hmm. man aw ma lu may d'accord ak lu may lu may kii ak ñoom. Euh, bu doon mbëri kese kese bu doon mbëri kese kese mhm. kon Alioune dem na. yaa ngi dégg mhm. ndax amul mbër boo xam ne bu taxawul ne Alioune na dem mhm. bu doon bëri kese Alioune Sarr dem na kon tey ki nga xam ne moom moo moom moo ko fi teg ah léegi nag moo war a xool nag li neex mbër yi rek muy se euh, muy euh, kii muy Matar Ba premier ministre waaw kon daal Matar Ba moo war a jël décision bi. waaw moo war a jël décision bi rek. ndax tamit bu fekkee tey da ngay jiite ay nit yoo xam ne tey fu ne ñoo ngi koy jooy pour nga pour nga bàyyi. Mhm. ah wax dëgg yàlla man de bu doon man mhm. man damay bàyyi. waa mhm. ah, wante léegi nag. Matar Ba xam na léegi lépp lu mbéy du jox amul benn mbër bu mu dul toogal te du ko wax lool. Mm-hmm. kon nag wax dëgg yàlla war na toogaat xoolaat boppam. Mm-hmm. xool li nga xam ne moo neex mbër yi. Mm-hmm. Ah mu mu xoolaat lan lay changé waat CNG yi nga gis. ceeb ci kan lay gis boppam. boo xamante ne booy boo xamante ne da nga koy gis mu bëree rek su bëree rek nga ni non kii moom da nga gis sam bopp ci booy. Euh, boo waxee loolu rek da ngay kii man bépp bu nekk Pikine rek. te indi drapo Pikine rek. damay gis sama bopp si yow. mais tey mbër mën naa bañ a dëkk Pikine. waaw ah. tey muy bëree benn mbër di bëree. jékki-jékki ceeb qualité yi nekk ci moom mu gis ko ci booy boobu noonu loolu mën naa nekk. non parce que parfois nit ki di nga gis di nga gis benn mbër li ceeb di def wala ceeb li muy bëree mbër moom di ko bëree sans autant que mën naa bañ a dëkk Pikine sax loolu mën naa nekk. non li nga wax dëgg la. Mhm. mais est que loolu gis nga ko ci làmb ji. non gis naa ko gis naa ko gisati ko xam nga tey. Mhm. bëgguma citer tur. mais loolu. yaa may dégg waaw yaa bëgguma citer tur. Mhm. wante daal xam nit moom li ngay wax rek danga koy wax fi nga xam ne. foofu nga féete. muy Pikine. maa ngi koy gis si booy ci booy Pikine mbër yëpp nag. samay waay lañ. muy Balla Gaye mm-hmm. Balla Gaye respecté na ma trop. Mm-hmm. muy moom ak. Mm-hmm. ñeneen ak ñeneen ñëpp. ñoom ëmma seen ak ñëpp samay waay lañ. aw ma si benn sens interdit ñoom baabooy. xam nga aw ma si sens interdit. aw ma benn problème ni ma gis nii ni ma mel nii noonu laa mel <laughs> noonu laa lay làmb moo ma boole woon ak ñoom. xam la bàyyi naa làmb. terewul na ñëpp sama waay lañ. boo gisee tamit mu toog di raar si yenn affaire yeeg média yi tamit. yooyu yëpp du dara. xam nga la mhm. toog concentré wu sa liggéey. ak say business yi ngay def rek loolu dong la amul leneen. révélation yi ñëw ñu am hmm. na ay booy ci moom yaakaar du ma lim nag yaay lim. ñoo bëri na. ay Mame Balla. Mhm. Mame Balla. moo ngi foofu. Mballa mhm. Pikine Mbooloo. Pikine Mbooloo ak Ikri euh, Pape Diop. xam la bëri na ay booy yoo xam ne tey ñoo ngi si yoon bi di ñëw. xam nga bëri na de booy yoo xam ne ñoom waa mam Balla mhm. xam moo ngi si yoon bi. Mhm. Pikine bëri na ay booy yoo xam ne tey fi mu mhm. ñoo ngi foofu ñoo ngi si yoon bi di ñëw de. tey làmb ji fi mu ne nii bi feebar bi moo xaw a kale yenn affaire rek. kon daanaka bu fekkoon tey nekkuloon feebar di nga gisaat yeneen booy yoo xam ne dinañ déclenché wat. si si saison bi. su ma nee laaj Sa Thiès. ne la ñaari booy yooyu lan nga gis ci ñoom. ak combat la de. non lan nga gis ci ñoom ñoom. avenir. avenir. Mhm. xam nga ndax Reug Reug moo ngi def ay preuve yoo xam ne. Mhm. daanako si mbapat loo koy defee di ñëw. Mhm. yaa ma gëm boppam gëm na ne fi mu ne nii mën na téye làmb ji. xam tamit gëm na ne tamit mën na téye làmb ndax tey. wala kenn nax. ñoom koo si gis tey boo subaa boo gisee rek dina am benn changement nga xam ne kii gëm na boppam. xam ñoo ngi entraîné ah voilà ak yeneen ak yeneen. Mhm. kon ñoom gëm nañ seen bopp na mën nañoo teel làmb ji seen seen seen loxo. Mhm. waaw Sa Thiès Yékini Junior Sa Thiès euh, Garga Mbossé te su ma la tegaloon combat boobu ban combat <laughs> fi mu ne nii. Mhm. sans dépasser euh, Sa xam nga ñoo ñu nga tegal noonu ñëpp. Sa moo si tànn ku mu si bëgg a bëreel. kon tey. Mhm. saakees ñooñu moom mooy xool ku si bëgg a rek mu bari ñoom ndax ñoom yëpp ay combat la. mais amul bu ci dàq. ñu combat yëpp a neex tey saa ak Yékini junior combat la. Mhm. ak euh, kii Garga Mbossé combat la. Mhm. Ah. yu neex. làmb dox na wala doxul. non làmb moom nu mu doon doxee bu njëkk ak léegi moo xaw na wàññeeku tuuti moom. waaw yor am nañ promoteur yoo xam ne am mbër yu ñu yorat xaalis xam nga. maanaam sponsor il faut ñu dugal seen loxo pour làmb dox boo jee bëggee mu dox gis nga fi mu ne tant que dugal ñu seen loxo. même bu làmb ubbee tamit. ay problème kese lay am. waaw koy moom. foo tey ah xaw ma de Macky Sall wañ loxo euh, loxo kii yi. Euh, sponsor yi. ñu jàppale ñu jàppale ñu jàppale làmb. ndax làmb tamit doon toll na benn moment boo xam ne am na million yoo xam ne. bu la sponsor jàppalul. doo dem de. sa moyen bopp kese kese ak billet yi nii. doo si génn de moom kay xanaa bon boo bëree ba pare di nga tayle sa kër wala nga am problème moom loolu moom amul soo wax moom boo amul sponsor mhm. kooku moom moo moo wax loolu moom moom doo dem waaw kon tey nu mu doxee woon ak léegi moom doxu doxewul doxewul noonu mhm. waaw um, jàpp euh, say combat mystiquement mës ngaa sentir say sama combat bi dañ maa jàpp mystiquement mës naa waaw xam nga làmb moom mhm. <laughs> làmb làmb la rek <laughs> mooy li may expliqué rek xam nga moom dinañ la jàpp di man maanaam man li ma gëm te man moom laa yóbbaale esat mhm. te ñi ma doon àndal sax xam nañ loolu même bu ñu ma jàppee. Mhm. man bu ma demee ne dama naa damay damay wax ne kii dama koy daan. mais mhm. sa ban combat nga mosoon nga nga a bëre euh, Souleye Diop la wala euh, kii nu mu wala euh, kii benn tudd sax sa ban combat nga bëree bëree ba pare mu daan la ñaan ko tijjil kànnaar bi. maam Njambaar la woon maam Njambaar waaw maam Njambaar la waaw jàpp ñu woon musique ma. waaw moom laa la expliqué xam nga non mais waa nga. waaw moom laa la expliqué xam nga tey man. xam nga tey làmb boo nee mystiquement bi rek boo bëggee jël mystiquement xam mystiquement bi moom mënul ñàkk si làmb. Mhm. mënul ñàkk si làmb. Mhm. waaye da ngay xam ne tey heure boo jógee ci lii rek. boo lëgee yow doo bëgg loolu daraat la. bëri na ay combat yoo xam ne da ngay wóor yow mii tey ñi ngay ñi ngay àndal sax. dañu xam ne kii tey du baax. am na combat yoo xam ne dañuy da ngay dem ci seetkat sax mu ne la da ngay dem ci seetkat mu ne tey ngay daanu nga dem far yàlla yàlla may la ndam. noonu la noon la demee rek. dañ lay jàpp nag. Mhm. waaw di nga dem ba benn moment boo xam ne yow kenn du la kii luñ la wax nga ne kii tey dama koy daan. nga dem nag boo demee nag ba daanu nag ba pare ngay soog a comprendre. kon maam Ndiambane moom ñamoon nga gànnaar bi. bëri na ay combat yu bëri. Mm-hmm. xam nga ni su lay def rek. Mm-hmm. xamula su lay def dañ ne woon daf may tamaate. Mm-hmm. ma dem dóor ko noonu la demee rek. xam moom moo demee noonu. waaw noo gisee léegi mystique ci làmb gis nañu mystique bi dafa dem ba dominer gars yi ji ngi def loo xamante ni sax dañ naan jaru ko. waaw léegi moom xam ñoo ànd fii. waaw même boo jëlee. ne sax doo ko def say mbokk duñ la ci bàyyi wala sa mbokk bàyyiwul say xarit duñ la ko ci bàyyi ndax maanaam jël nañ loolu ba pare jël ko jiital ko te mënul ñàkk te làmb mu nekkee làmb ba léegi ah loolu day gën a yokk rek waaw day gën a yokk rek bu dul woon loolu tey mbër yi ay milliardaire la ñu doon woon affaire musique yi nii kon mbër yi milliardaire la ñu doon te nga gis tey mbër boo xam ne tey dina bëre ba pare nga dem si moom daanaka ni nga ko fage woon du ko kee ndax daanaka lépp digal nañ ko ko ay sarax jox na si sëriñ bi. combat bi jeex mu ñëw mu xool ay loxoy nen. fekk moom ndam rek moo ko si loolu ba kañ. waaw làmb moom dafa metti waa dafa metti ndax tey millions yi ngay dégg nii dee ko dégg rek de. maanaam mbër bu ñu mbër bu ñu fay cinquante millions. jàppal moom bu si lekkee matul lekk si dix millions. waaw bala bu si lekkee ba lekk huit million la siy lekk. waaw bala mu bañ see lekk loolu. daanaka lépp da koy partagé waat si ay sëriñ. ndax tey sëriñ yi dem na ba nga xam ne yow kenn mënu la fay seen dañ lay jël bool la nit waan duñ la ko fayal. Mhm. yow nga dem fay. Mhm. waaw wala nga ñëw diggee fa loo xam ne ne bu la yàlla mayee ndam di nga ñëw jox ko nangam. Mhm. xam nga yàlla may la ndam li nga waxoon ak sëriñ nga def ko. na lu na. ndax tey yàlla dimbal na ma si lu bari ndax lamb moo tax ñu xam ma. waaw man lu ma si xam xamu la. yàlla dimbal na ma si tey lépp lu ma si am. lamb moo tax ma am. waaw. lépp lu ma si am làmb moo tax ma am ko. kon regretté loo ci dugg. noo regretté wu ko ndax maanaam nit ku ne fi nga war a jaar foo nga jaar fa. Mhm. yaa yaa may dee. Mhm. tey man dem naa ba dugg si làmb am na loo xam ba mu si duggee. Mhm. xam naa lan ak lan laa si def. yaa bàyyi naa ko. amul benn problème. waaw. na loo xamante ne ko ci làmb. muy lu neex wala naqari loo xam te ne ko fàtte ba mukk. am na ci. ah bëri na. comme làmb làmb làmb. làmb ay métit kese la benn ay métit kese la ma ne ko làmb moom ay métit la. Mhm. yu bëri nag yoo xam ne moom doo mën a expliquer sax. Mhm. waaw làmb moom di nga toog benn moment boo xam ne yow di nga xam ne làmb la daal ndax xamoo làmb balaa ngay xam loolu muy neex. Mhm. ngay daan ngay gis ñu bëri. yaa de nga dem ñu commencé la daan nga commencé nga gis nit ñu commencé ceeb xam nga ngay dégg ay wax. nangam ay affaire yooyu. yooyu moom chaque jour damay toog moom loolu moom dama koy dama chaque jour maa ngi koy téye. damay téye na ah xoolal nag man teewul man dama doon waxtaan ak sama papa lu bëri sama papa dama doon expliquer. àdduna. nu mu mel. moo tax man après ba ma demee ba bàyyi làmb am na lu bëri loo xam ne. kii ma si daal. boo gisee may raat si yenn affaire làmb yi ngay gis nii. ci ñu bëri loolu dong la. amul leneen loo xam ne ay kii ndax da xam nga dañ lay wax ay mbër workat la ak affaire yooyu wante <laughs> kaamil la mhm. am na mbër yoo xam ne duñu wor. Mhm, dañ leen di wor dañ leen di wor duñu wor wante dañ leen di wor. Mhm. wante lu bëri wante nit moom da ngay sant yàlla rek nga xam ne tey maanaam xale nga woon. duggoon si benn affaire. wante bu jeexee jeex na day tax nga gën a xam àdduna àdduna noonu la quoi. waaw noonu la. nanu ci dund loo xam te ni neex na la ba tey boo mën ngaa dugg sa néeg sax xam nga affaire boobu nekk si yow mu neex la après nga kii ko. non xam nga man bu du woon làmb maanaam nit ki ban na ma bañ a xam. maanaam fii fépp fu si àdduna ak fépp fu ma voyagé làmb tax moom moo tax ma dem fa. foo ma mën a dem si àdduna. fu ma mën a dem si àdduna mhm. ceeg lañ may wax. Mhm. même allah ji laa mhm. ceeg lañ may wax. te làmb loolu làmb moo moo waral loolu. yaa ngi dégg dem naa bu màgg. xam nga la nit ñi ñoo xam ne dañuy bëgg pour ma jàppale leen sax pour bu ñuy aj bu ñuy bu ñuy bu ñuy taw bu ñuy kii. dañ ma ee eh, ceegee. xam nga xam ne tey. làmb moom moo si si làmb làmb lañ ma xamee si làmb lañ ma xamee. kon loolu sant yàlla rek. xam nga loo xam ne da nga fa doon jaar jaar naa fa. génn naa si ak jàmm ak salaam. génn bi nag yàlla daf ma dimbali. ma dem màkk. ziyaaru yonent bi. ñëw bàyyi. Emily mhm. kon génn la boo xam ne génn bu rafet la waa kon maa ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax mhm. waaw ban conseil ngay jox sa rakk sa doom yi ñi nga xam te ne nekk ci làmb wala ñu bëgg a dugg ci làmb ñu bëgg dugg ci làmb daal man li ma leen di expliquer rek nit moom euh, mbër na nga am métier wala ngay liggéey mhm. moom moo gën a wóor ndax làmb tëri na tëri boo xam ne foo nga liggéey ndax tamit mënoo dem si nit ñi chaque jour ñu lay jàppale ku la jàppale tey bu subaa du la jàppale. yaa ngi te nit tamit mënul dëkk ñu koy jàppale am na ñoo xam ne tey si muy neex moo tax ñu lay jàppale bu commencé naqari ñu commencé dañu lay yenn tànk yi. loolu nag nga am sa liggéey bu wóor ba nga xam ne tey doo sonal kenn ba nga xam ne man bàyyi naa làmb teewul maa ngi sant yàlla. xam nga bu fekkoon tey liggéeyu ma def ma dara kon dina gën a metti si man kon maa ngi siy sant yàlla kon booy dama leen di wax ne tey képp ku bëgg dugg si làmb jàppal sa métier wala ngay liggéey du la tree yàq dara sa entraînement réew làmb moom yàggul carrière làmb yàggul ndax làmb daal euh, yàggul daal na am loo téye ba pare waaw boo amee loo tée loolu nag moom du la du la tree yàqal dara sa sa sa sport waaw l' émission tire à sa fin. waaw ah. kontaan nañ ci yow bu baax a baax. Mhm. accueil bi mhm. wax dëgg yàlla xam nañ jot amul. Mhm. mais dañ laa woo. xam nga rek nga nangu ko. ñu lay remercier bu baax a baax. donte fekkewul ci li nga xamante ne moom mooy sa làmb. mais fekk nañ ci tuuti. mais ñu la estimé woon la woon la. moo tax ñu def la tout. pour jël sa numéro pour mën a waxtaan ak yow. ci làmb kontaan nañ ci yow. bu baax a baax a baax. waaw maa ngi siy sant. di la di la remercier tamit bu baax a baax di nuyu tamit sama ñaari soxna yi euh, muy Dieynaba Ndiaye ak Diaw Gueye maa ngi leen nuyu tamit bu baax ak sama rakk ma nekkal fii tamit ci kër gi muy Maguette booy ak jëkkëram di sëñ Saliou ah maa ngi ziar ñëpp daal di leen nuyu yéen ñëpp di leen nuyu yéen ñëpp daal maa leen di ziar daal mhm. affaire bi daal neex na wax dëgg yàlla mhm. boobu ba léegi jot amul woon kon ni nga ko waxee rek liggéey bi moo lay tënk ba nga xam ne yow doo xam heure bi ngay wàcc ak heure bi ngay kii ak yooyu wante mhm. wax dëgg yàlla ma xamoon ne yow côté bii nga dëkk mhm. même mënoon nañ ko def ma bu yàgg wante tey nag la ko yàlla dogaloon kon maa ngi si sant di la gërëm mhm. di gërëm sportif yëpp di leen sant di leen gërëm di leen ñaana tamit yàlla da yàlla def jàmm bak Seydina Mohamed amiin amiin amiin amiin Bassirou Diouf l'infatigable di la bëggee waat nag bu baax a baax a baax mais Mamadou Diouf a baax ndax di la remercier sama xarit naan la nag wax dëgg yàlla gis naa na fi ma féete mais nag yàlla baax na émission bi li ma la waxoon rek yow laa ko may yaa xam nga man xam naa jarul discours bu bari mais di ko bëggee waat bu baax a baax sama jumelle bi toog muy Ramatoulaye borom bu baax a baax a baax a baax mais l'infatigable sama séeréer bu naay fi ma tàyyi di ko wax maa lay bëggee waat bu baax a baax ndax yow su ma acca rek nga ne acca yàlla sa jàmm yàgg di remercier nag. président bi nga nuyul ñu ko nag de. Ah. président Tafa Gueye. Tafa waa groupe Saz. ah mhm. ñoom Pape ko nag. ñoo ngi nuyu tamit ki nga xam ne mooy suñu président muy Tafa Gueye ak père Birahim Ndiaye ñoo ngi koy ziar grand Serigne Kane ak grand Mansour Diop ñoom Pape ñoom Malan Ndiaye ñoom booy Sey ñoom ñëpp ñoo bokk ak ñoom Abdou. Abdou Ngom ak ñoom seex Cheikh Mbaba ñoom Ibou Ndappa ñoom Grand Serigne Ndiaye ñoo ngi ziar ñëpp gars yi daal boo limee da ngay juum mm-hmm. maanaam ñoo ngi groupe Sage yëpp ñoo ngi leen di ziar bu baax a baax ñoom Yaaya Jammeh ñëpp ñoo ngi leen di ziar di Ahmed Aïdara mm-hmm. ñëpp daal ñoo ngi leen di ziar groupe Sage daal émission bi daal waa groupe Sage yëpp ñoo ko moom ah. ñoo ko moom dégg nga. waaw ah, <laughs> ah, di ko bëggee waat bu baax a baax l'infatigable sama séeréer bu nice man di remercier bu baax a baax mais Babou sama sama sama grand bi quoi sama grand bi Babou borom wasaare maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu madame. naan la ah, sama DG bi nag sama PDG bi dafa nice quoi man maa fi am lu kenn amul PDG boo xam te ni jeune la nice yor waaw maa ngi lay bégee bu baax a baax mais Basirou dafa am koo xam ni ah kenn la ci man muy Pape Mbaye ah boroom boroom borom France di ko euh, souhaiter joyeux anniversaire naan la happy birthday to you sama mbër sama xarit sama lépp di la ñaanal jàmm yaa xam li nga bëgg yàlla na ko yàlla defal ci barke xam Mohamed yow moom kon ni ko Sa Thiès waxee yow xaritu ñëpp nga. ndax dangaa baax ba pare yow daal yal na sa jàmm yàgg pambaay yow dundal loo dund doyul dundal cent ans dem ba nekk roi des arènes parce que tamit mérito nga ko sama xarit bi leen rek mooy sa problème mooy nga xaw a nekk défiant mais maa ngi bëggee bu baax a baax nan la nag nuyu ñu waa foofu dinañ ñëw de jaajëf pambaay Basiirou sama séeréer bu nice bi ak Fatima kese